Balla Gaye Gris Bordeaux li ci des pareetul dara des na ay fan yu néew waaye dafa mel ni ki rek coow topp na kii di la lion de Guédiawaye bàll Gaye numéro 2 gannaaw coow yi nga xamante ni weesu na woon ci combat diggante moom ak Bombardier ba mu ci noppee ñu bëri ñu ngi doon wax naan la woon du bii Balla forme bi mu amoon ak bii ute na loolu rawatina tamit cummikaay bi bëri woon loolu ay nit ñu ko doon coow mu mel ni ki daal. gannaaw fan yi ñu génn amoon tamit beneen coow bu ko toppoon ci biir géejuwaay ñu ne woon sax dafa am séparation wala boog sori lool ak yenn mbër géejawaay fi mu nekk nii wax nañu ne moom Balla gay numéro 2 dafa fantasiro ak kii di Balla Beye numéro de Balla Beye bi nga xam ni doon na nekk ci wetam di ko waajal fi mu nekk ni sax nee ñu Balla Beye numéro de ma nga fële ca Fuuta sori bàll Gaye bañ a fekkee bi dee combat beneen bi tamit yokk ci ki nga xam moom mooy euh, Thierno Gueye doon ko waajal lépp loo xam moo jëm ci wàllu mystique jege ko lool tey mu wóolu ko woon lool fi mu nekk ni daal ku ne dox na doxam rawati Balla Gaye numéro de xibaar bi nga xam ne wàccaat na nee na nañu dafa séparé wu ak kii di jege ñaaleem mbër bi bile di commissaire bu ñu xamee commissaire jege na woon Balla Gaye ni Thierno Gueye jege woon Balla Gaye doon ko waajal tamit lépp loo xam loo jëm ci wàll mystique daa mel ni ki coow li nga xam bari na woon ci diggante moom ak bërgee bombardier te mu bëri woon ay nit ci cumikaayam ak ñi ko daroon lool daa mel ni ki daal dafa am lu ñu waxtaanee ba fantasiroo mën a am ci ñu bëri maanaam ñu bëri mu daal di séparé wu ak ñoom waaye daal la ñuy wax rek est-ce que Balla du wéet ci bile combat bi gannaaw bi nga xam ne am na ay mag ñu ko daal di wan ginnaaw rawatina ñii di ay jege ñaale ñu ci bëri mu daal di tàggalikoo ak ñoom ku ci mel ni ki Baboy Thierno Gueye commissaire ak yenn ci ay mbëri géejuwaay daa mel ni ki daal diggante moom ak Gris Bordeaux bii sap na sàpp te commencé gul.